gis na vidéo yi loolu kenn waxuma maa gis vidéo yi te man vidéo yi li ma si gën a métti mboot mboot moom ma si gën a métti mu nekk ay xale yu fa fële ca Mbour nekk fa ci appartement def na ko su dul noonu nekk dama ko gis loolu kenn waxuma ko sax man maa si teg sama bët dinaa ci am na lu mu waxoon ci mbirum vidéo yi xam mooy faral di génn mu nekk lu doy waar mu nekk koo xam te ku ko xam-xam ko fële ca Mbour ci wetu xaritam Karamba mu nekk koo xam te ni xam lu bëree bëri ci Sénégal na ko bàyyi nag mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi xam na tey waxtaan bi waxtaan bu leer lay doon waxtaan bu ama am solo lay doon parce que gis na lu ma trente vidéo yoo xam te ni génn gis nañ Adama def na ci vidéo te it xam naa dina ci leeral lu bëree bay dama ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di bu baax a baax général waaw di nuyu waa yëmbal fi nga xam ne fi laa juddoo yaroo fi di nuyu cent pour cent yëpp. Mhm. di nuyu Malika benn baraak mbedd Fass. Mhm. waaw di leen bëggee bu baax di ñaan tamit Sénégal yàlla na jàmm yàgg maa ngi lay nuyu bu baax. Euh, Demba balaa ñuy dugg ci vidéo yi. fi ñuy commencé mooy gis na lu ma trente vidéo yoo xam te ni génn. te avant vidéo di génn vingt jours ci ginnaaw jëloon nañ la émission nga wax ne am na Sénégal ñoo xam te ne ay kuréel la ñu mat ay euh, yu am ay dix-sept ans ay seize ans quatorze ans ba quinze ans dañuy faral di génn di jaay seen bopp ndax xaalis wala ñu dem ay appartement dafa mel ni nga doon wax tey leer na. waaw xam nga des fois Sénégal da ngay wax benn wax sax ñun la day wax waxu kesaw kesaw wala lu muy wax maîtriser wu te donte yow mënoo juddoo fii si banlieue bi yaroo fi màgge fi ba toll ni nga toll dugg fu ne dund lu ne def lu ne kon yow dara jaaxalu la. Mhm. man su ma waxee leen rek am na fi ma ko teg. Mhm. te dama ko gis loolu kenn waxuma ko sax man maa teg teg sama bët. dinaa ci ñëw ci loolu. Mhm. dafa am lu am solo lu am. démb danoo gis ne yaa ngi doon wax lu mel noonu yàggul. vidéo yi na génn ay xale. dinañ ñëw ci naka bi ñu doon seeyee ak ni mu ñaawee ak li ñu doon jëfandikoo. balaa ñu ciy ñëw nag dañuy wax ne trente vidéo yi xam te ne génn na mu nekk ay xale yu demoon fële ca Mbour nekk fa ci appartement def naka su dul noonu naka nga gisee lool waaw lu dul ñaawlu ko rek. lu dul ñaawlu ko comme ñoom xalaatuñu am nañ yaay wala papa xalaatuñu ay doomu jullit lañ ñoom audience dem ba Mbour Saly jël fa seen appartement di def naka sudul noonu yàlla baax na. gis nga vidéo yi. gis naa vidéo yi loolu kenn waxuma maa gis vidéo yi te man vidéo yi li ma si gën a mbot mbootu mbootu moo ma gën a métti yow ak awra nu mu seeree jigéen awra nu mu seeree nit amul leen lu dul boppam mbootu koom. ñu jël mbott bi la jël awraam dugal ko ci biir mbott bi jigéen nga ne jigéen moo jël awraam jël mbott def ko ci biir def ko ci ci biir waa ji jàpp tànk bi ak kii bi mbott bi di ko xëcc fekk mbott bi dugg na ci biir tànk bi rek ngay séen beneen bi balaa ñëw balaa ñëw ci beneen bi loolu lan la mën a jural doomu aadama ci jigéen en tant que jigéen ak valeur bi mu am feebar mhm. feebar mun na laa dikke est-ce que loolu nekkul montage du montage de feebar mun na laa dikkee mhm. leneen ak leneen mun na laa dikkee mbooti mun na faa jaar sax mënatul bañ a génn nga am problème. dinaa ñëw ci yeneen yi parce que dégg naa ñu ne paaka ci la bokk. Mhm. dégg naa ñu ne ginaar ci la bokk. balaa ñëw ci loolu euh, tey jii ba nga gisee yu mel noon en tan que julit en tant que xale naka nga gisee loolu maanaam ban yëg-yëg nga am. waaw mooy ñaawlu ko rek xam nga xam nga tey ñun tey ñun mënuñoo bokk si famille bu baax. Mhm. doon ay doomu julit di def na ko sudul noonu gis nga nit. Mhm. dafay am loo xam da nga koy jombal sa bopp. dem di jëli appartement amoo jëkkër amoo dara loolu mooy njëkk loo xam ne rafetul mhm. ñu ne waa déet ngeen nekk fa di jël ay mbott di ko dugal seen awra bi surtout jigéen mhm. di fa def affaire yoo xam ñun ñun ak tubaab bi duñ benn ñun ak mhm. ñag yi duñ benn mais est-ce que yi àgg nañ ci loolu jël ay mbott ay paak genre man gi tubaab yi tubaab yi ñoom namuñu dara tubaab yi lu leen ah, sax lañuy def ñoom waaw ñun ak tubaab yi bokkuñu suñ doree rey tubaab wala ñag yi ñun dañuy sol ndox bëgg naa xam ba nga nekkee mbuur balaa ma ñëw ci cadre paaka beeg ginaar geeg yu mel noon ba nga nekkee mbuur ndax daan nga fa gis yu mel noonu muy Mbour muy Dakar muy foo munti dem ñuy taxawaal moom ñu ngi taxawaal ñuy jaay seen bopp ñu ngi jaay seen bopp. Mhm. fépp la am. du Mbour kese fii ma dëkk yëmbal am na fi géejewaay am na fa parcelle am na fa feneen ak feneen. Mhm. foo dem am na caga. Mhm. mais bu Mbour bi moo siw rek mais am na yeneen gox yoo xam ne tey am na ay caga. am na ay caga ñu dem mm. ci euh, deuxième vidéo bi mm-hmm. mën na ne bëri na mais dafa am trois vidéos yoo xam moom ci gina a bàyyi xel waaw euh, beneen bi ñu ñëw ci paaka ndax paaka nit jigéen war na ko jëfandikoo ci boppam waaw xam nga ne paaka man ba ma koy xam paaka bu njëkk paaka dagg soble paaka dagg mburu wala dagg yàpp wala ginaar mais paaka lëmm nga jël ko dugal ko sa biir awra bi man de xamatuma ban réew lañ nekk mm. parents yi de ku yeboo nga jël say matuwaay bu baax a baax say doom lan mooy problème lan moo indi lu mel noonu balaa ma ñëw ci gi lan moo indi lu mel noonu ba xam parents yi téléphone yi ñuy jox seen doom yi la wala connexion bi la wala seen doom yi dugg fu war a dugg wala mais parents yi léegi bu ñu xëyee suba gi la ñuy wut mooy lekk ak naan booy hmm. léegi seen copains yi leen utal téléphone ñoo leen jëla appartement yi seer booy léegi xale yi jigéen ñëpp a yeewu xam na ñu ñuy def ba am xaalis ndax seen seen awra yi la ñuy wanteer hmm. léegi loolu noonu boo koy def di ko def di ko def moo gën gaaw ko tey mun naa xëy di liggéey suba ba ngoon munu moom journée 4000 ñoom bu ñu xëyee guddi gi mën nañu am ay cinquante mille. ci benn jour quarante mille si benn jour wala ay cinquante mille wala soixante mm. mille si benn guddi yow nga xëy suba ba ngoon wàccaale trois mille wala mais dafa mel ni quatre mille francs yi xam te ne dañ ko a bëri mooy am pagaay ay day day benn du benn boo koy tëkkale loolu leenee dafa araam imagine amoo jëkkër amoo dara di njaaloo ak ki nga xam ne day jaamu yàlla liggéey te ñëpp xam na liggéey si jaamu yàlla bokk. Mhm. bokkul sax. Mhm. ñu dem ci beneen vidéo bi. Mhm. beneen bi nag wax dafa day ñam la a jëfandikoo ci suñu biir yi. mu nekk ginaar. man vidéo boobu doo koy dëgg la dëgg dëgg dëgg la loolu la. am na man mi vidéo bi léegi laa ko gis. sama téléphone. mais mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg lu rek. waaw dañoo bëgg lu rek ak ginaar mala nga xam ne ñëpp gis nañ nu mu te boo koy lekk nga koy taaxamte ko. nga jël di seeg mala. Mm-hmm. man man xamatuma ban réew lañ nekk. Mm-hmm. te lii nii nii nii ni nii moo ñu gën a taral ñun senegal moo taxola ñuy ñàkk ñu ngi ñàkk ñuy am am ñuy am tuuti am tuuti. Mm-hmm. ndax lan xeetu ñaawteef yi am ci dëkk bi. waaw ab mala nga koy tiim di moom. gis nañ trois trente vidéo mu nekk vidéo yoo xam vidéo yu salte la ñëpp di ko ñaawlu actuellement gis nañ Sénégal mi ngi gën di nekk ci pauvre. mi ngi gën a metti coow laa gën a bëri ñaawteef yaa ngi gën a bëri. léegi nga waxoon fan yee paas ne da nga gis ay vidéo yu bëri yoo xam day faral di am. ay 16 ans 14 ans jaay seen bopp yu mel noonu nak la defoon ba xam lu mel noonu danaa dox wala lan la. waaw ngor ngor boo fa demee moo fa bëri Mbour Saly comme ni ñu koy waxee boo fa demee moo fa bëri si town bi moo fi bëri. Ah, ay ci place la fa bëree. Mhm. léegi gars yi dañuy sangu sax si biir place di sëy. ci biir ndox mi si biir ndox mi di say ci même bëccëg wala wala di baaraamante di def ay naxu sudul noonu pourquoi mel ne ay ay ay tubaab mel ne ay ñag léegi ñun ñoo raw ñag ñi ñoo raw tubaab lu ñu neex la ñuy def xalaatuñu yaay xalaatuñu papa ndax lan ñu ngi topp nas su baqan bi li ku ko topp moo lay sànq. Mm-hmm. bëri na fay boo yoo xam ne ñu ngi si biir milieu bi di jaay seen bopp. Mm-hmm. pourquoi mënuñu bàyyi bàyyi milieu bi dem bindaanu ji wala ñu def na ko sudul noonu. mais mbindaan aussi nga wax sànq nga ne weer mën nga ci am journée mën am ay soixante mille soixante quinze mille. waaw mbindaan ñu lay fay quarante baax na xam la moo tax. Mm-hmm. sàmm sa image. sàmm sa image. am dafa am solo. te boo gor judd fu baax am yaay am papa am na hmm. yenn yu bëri danga ko war a jombal sa bopp hmm. tey ñu ñuy ñëpp ñoo leen gën a métti situation hmm. mais dañuy dem ak suñ ngor dem ak suñ diin nit bu mu métti rek nga jaay sab ngor waaw bu neexee après looy def te gis nga caga barki Seydina Muhammad bala ngaa dee doof ah caga bala ngaa dee doof ndax koy bu ne mu ngay ah, awra bu ne mooy dugg si sa affaire bi léegi awra boobu di dugg si xamoo ko feebar xamoo ko wër xamoo ko nekk si activité nga bëgg a encaissé koy Côte d'Ivoire ivoirien ñàkk tubaab sénégalais guinéen bissau yooyu noonu mënoo nekk conscience mhm. ndax lan boo leen koy wax duñ ko duñ ko dégg nag mhm. ndax dañoo toll seen digg doole di am xaalis nit ñi di leen fréquenté mhm. ku ñëw doon sàmba alaar na yaa fi nekk fekk mu ngi lay espalade maman bi ngay maman bi ngay xam day fekk c'est trop tard lu takk jotee duñ la takk duñ la waree jàppal duñ la jàppal ñeneen la ñuy dem xool ku la gën a tegwaat temps bi ñu ànd ak moom da leen si bàyyi xel am na solo trop euh, ginnaaw bi loolu amee nag ay vidéo xale yi dem nañ ci appartement yi def nañ vidéo mhm. vidéo yi mhm. yi ñu koy tas mooy à prépare seen copine la rek ah seen copine yi mhm. ndax nit da ngay nekk moom am si moom confiance ngeen di urgente téléphone di waxtaan di demalante waaw mun nga def sa téléphone loo xam ne sa après fàtt nga ko wala mu gis ko ko si téléphone loolu la rek mais nit mënut la yow mënoo def lu bon di ci vidéo yi te nekkum Sénégal loolu naka la mën a nekk. waaw mooy ñu mooy xam nga kam ku mel ne genre aadama yi ak ñeneen. ñooñu hmm. dañuy joob ak ñeneen ñi nga xam ñu ngi fii. ah dafa am ñu ñuy dañuy am ñu ñuy liggéeyal ñi nga dañuy waxtaanee. ñu xool ñaata lañ leen mën a fay. Hmm. mais moom mu koy dugal moo si gën a gañe mooy aadama. kon affaire nekkul gratuit ci ñoom. déedéet du gratuit. jël vidéo def live du gratuit. du gratuit aadama day liggéey si vidéo yi. loolu noo ci mën a amee xaalis. barki Seydina Muhammad si liggéey ndax am na ñoo xam ne lu bon rek lañ bëgg. yàq nit rek lañ bëgg. weer hmm. nit xaawi sutura nit mhm. te yàlla moo ne ku ku weer na dina la weer mhm. Mhm. ndax yow mos nañ la proposer lu mel noonu par exemple bëgg na yu mel noonu ba taay kaa yu ma jot fii sama loxo noonu la bëree mais du ma yàq nit man doomu jullit laa damaa bokk fu baax dëgg la nag affaire yi demeewul noonu mais tout le temps ñun ñu yàq nit waaw loo fi loo fi xam rek nit xamal na la ko mais dama dañoo gis da nga léegi da nga changé bi da ko bàyyi waaw affaire yi amatul sens Mhm. yow xam nga man instant ni lu sar charge bu ma yenn attanu attanu ma ko. Mhm. mooy lan bëgg a jàppale sama yaay talu ma sa jabar aw ma jabar aw ma gel mhm. aw ma xarit. man maa ngi samay activité nu ma mën a jàppalee sama mère. waaw kon kooku noonu leneen lu mu si tegu rek day sonal boppam sonal waa këram. te du ko jar. te du jar kon man ku may jàppale rek may jàppale sama mère. loolu rek mooy sama projet sama yaay. bu ma jàppalul sama yaay ko ma man dinaa takk jabar. wala may am gel bu ma kenn bëgg. Mhm. am na solo trop nga waxoon benn vidéo nga ne mas nañ la woo proposé la xaalis mhm. pour nga jóob ak ñoom ci mbirum vidéo mhm. yow nga ne doo ko def lan moo tax doo ko def ah waaw barki Seydina Mohamed xaalis dafa neex te dafa sax si xol mais gis nga nit amul leen lu dul boppam nit amul leen lu dul boppam boo dee jigéen la jur nga am raq amay mag kon boo xalaatee loolu rek waroo jël raq jàmbur di ko yàq wala ngay wax si moom lu ñaaw wala ngay jël yaay jaam di ko yàq mhm. te ku fi yàq rek ku jaam wala yaay jaamul sa raq dañ koy yàq dañ koy yàq waaw at jamono lañ nekk ci loolu boo gisee ne vidéo tas na xale bu jigéen boobu naka la koy dundee ak waa famille ak ay parents naka lay sëggee di xool seen waa kër moom mun na koo bañ a def kaa mais yaayam du nekk papam du nekk moom waaw mhm. xam nga booy yi fii ñaata booy yoo xam ne seen awra ñu ngi si table bi ñu saam ko si kaw marché bi mhm. ñëpp teg seen bët mhm. mais du leen def kaa deux jours trois jours ñu nekkaat seen activité mais waajure la dëkkandoo yi yi am di jàmm yi waajur yi dañuy xalaat fu sori yow mi xale sax doo ko bàyyi xel loolu moo tax waajur yi dañuy am problème day des si ñoom ba léegi nañ ko fàtte day des day des nga xale yi nañ ciy bàyyi xel. Mm-hmm. yow yow kese bu doon yow kese kese amul problème mais say waajur ngay sonal. Mm-hmm. ndax mbokk yi. Mm-hmm. waaw euh, am na solo trop dañuy continuer ak yow dañuy gis dama mu loo tey jii ñu bëree bëri dugganteeg yow di la jàppale ngeen seq teraanga lan ma waral lool. waaw muy yar laa leen war rek yar ak teey ak baax rek waaw yar ak teey ak baax rek ak respecté leen ñu respecté ma waaw loolu kese la. mosuma dund ñoom ñu la ñaaw te ñaan ma ko yàlla. waaw ñan nga gën a xamanteel ci TikTok wala feneen ak feneen ñu lay jàppale bu baax a baax nga xam ne ñii ñëw nañ ci yow pour jàppale la. waaw mooy bëri na mooy bëri na mooy sama jigéen jooju ma la doon wax. Mhm. Casamance ndeysaan. boobu day mhm. sonn si man. Mhm. waaw nit ku baax la tamit artiste la. waaw ku am talent di way di def lu baax. wax dëgg yàlla nekk Casamance. waaw sama mbokk Casamance. Mhm. damay kii bi nag tur nag xam nga. Mhm. yaa ma gën a xam. dinaa teg photo waaw barki yàlla moom damay jàppale day sonn si man waa Casamance la. Mhm. ba pare mu ngi def lu am solo doon chrétien. di dugg si jumaa yi di dox social. di si daara yi di def social. di jàppale ñëpp di taxaw ñëpp. nekk nit ku baax. waaw muy chrétien muy musulman muy njaagum ñun ñëpp fa yàlla. def lu baax rek am solo. te moom si lu baax lay dox si lu baax lay wax nekk si aaram. di jàppale ñëpp. wax dëgg yàlla nekk nit koo xam ne jàmbaar jigéen ju mun góor la mm-hmm. du ma koy ñaan a gudd fan ak wër yàlla bàyyi fu mu yëgal mission mm-hmm. nit ku baax la daal gis naa sa taxawaay si Sénégal gis naa sa taxawaay si diaspora bi yëpp gis naa nu ngay jàppale daara yi jumaa yi xam nga di jàppale néew di doole yi tey yow niveau bi nga am da ngay ñaan yàlla yow li nga am ni ñëpp am ko yow loolu mooy sa rêve si Sénégal te mm-hmm. gis nañ sa taxawaay kon yow jàmm si yow kontaan naa si spéciale gis naa sa taxawaay bu baax a baax dama lay sant di la gërëm mhm. dama ko bëgg nag waaw damay jàppale tout le temps mhm. te bëgg naa na nga jàppale ma nag mhm. maire foog ma jàppale ko waaw foog nga taxaw si bu baax ma jàppale sama maire eh, am na solo trop lan ngay tàggatoo ak xale yeeg vidéo yeeg ñi koy partagé ñi yàqante yooyu waaw ñu bàyyi ko rek bàyyi lu bon rek yàq nit amul benn sens yàq nit amul benn sens xaaw yi nañ fi sutura ñu bëri ñenn ñu bëri dee nañ ñenn ñu bëri stressé nañ mënatuñ ci ak génn seen kër yi bàyyi nañ moytu loolu bàyyi nañ bàyyi yàqante bi bàyyi wax ju ñaaw mm-hmm. nit di ko xamal sa nëbbal ko mm-hmm. bàyyi àdduna amul solo mm-hmm. taawut bi di léppay jeex kon nañu xool lu rafet ñu siy dox di si wax te mujjum jamono lañ nekk de lii yëpp mag ñu baax ñu waxoon nañ ko barke alxuraanu karim macha allah waaw nañ si bàyyi xel waa lu dul sant waay yëmbal rek di sant sama yaay sant tam bu baax a baax yow général waaw nit ku baax nga yaa ngi def liggéey bu am solo si biir yëmbal si ndakaaru yëpp waaw di la ñaanal nga yàgg fi te wër mhm. di sant sama yaay bu baax a baax di sant waa yëmbal mhm. di sant ñu may taxaw di sant Ablaye Diop xaas mhm. Ablaye Diop xaas tamit day jàpp si affaire yi bu baax a baax Ablaye Diop xaas mu ngi fee si Mourtani mu ngi koy yëngal bu baax a baax di faj dëmm yeeg jënna ku yàlla may xam-xam waaw di ko sant bu baax di sant jabaram sumbulu waaw di sant képp koo xam ne rek yaa ngi may taxaw ak papito xaritu yaayam ñoom gaan xam nga gaa yëpp dañ siy jàpp daal mhm. yàlla na jaamu yàgg Sénégal daal yaa mhm. ngeen jëf